seet si sëfoor si ñoo ngi woon fii ci terminus bi doon fi set si sëfoor si li xew ci réew mi accident yi ñii ne oto yi la ñii ne sëfoor si la ñii ne oto yi ñoo baaxul ñii ne sëfoor si la kenn xamul la la grand nuyu nañ waaw maa leen di fay noo def sant yàlla bu baax dinañ jox seen wàccuwaay terminal la maa ngi tudd Serigne Serigne ah waaw maa ngi nekk NNC mais chauffeur yi ñun li ñu gën a soxal ñun chauffeur yi mooy chauffeur yi cag-cag yi moto cag-cag yi maa yor oto bu mag léegi boo déparé da ñoom du ñuy rabaatare dañuy rabaatare attaque droite fekk yow doo ko gis des fois nga daw ba ëgsi ci benn tali bi nga xamante ne day jàdd à droite fekk moto mi ngi yow doo ko gis boo rabaatare à droite rek day fekk ëgsi nga ci kawam waaw loolu daal bokk na ci lu ñu gën a sonal waaw ah, ci tali bi sama mbokki chauffeur yi aussi ñu gën a def vigilant gën a teeylu gën a xool rétroviseur yi surtout bu droite bi parce que liggéey bi nekk na liggéey bu doy waar à chaque fois nag bu accident amee ñu ne chauffeur la te conséquence li koy jur bari na du chauffeur rek ñoo nekk tali bi cag-cag yaa ngi fi borom saret yaa ngi fi borom pousse-pousse yaa ngi fi borom moto trois roues yaa ngi fi aussi ñoom it noonu lañ ñu sonalee wax dëgg yàlla metti na xanaa état bi jàpp jàppale nu ci cag-cag yi cag-cag yi daal ñoo ñu sonal moom daanaka soog boo fi dégg cag-cag la. mais dañuy liggéey tamit dañuy daw dépasse. bañu ñu ko daw dépasse ñu ñu ñu xam ko xaw ko régulier tuuti parce que càq-càq bu amul permis xamul lan la ko droit di wax mu jekki-jekki fa lu droit xamul camion bi mi ngi rabaatare du gis signal man damay taxaw di may nit muy jéggi damay génne sama loxo pour arrêter càq-càq pour mu taxaw kii mën a jàll bis bu ne dama koy def mhm. parce que da nga koy def euh, càq-càq bi day ñëw du sax gis sa loxo parce que du ko xool moom fa mu jëm rek lay xool mhm. te da ngay klaxonné mu saaga la sànni la saaga la sànni la loxo doo ci mën dara dëgg yàlla sonn nañ de. ñun sax mais mais est que est ce que oto yi am na. non bien sûr bu dee camion yi xew léegi. bien sûr am na ci yoo xamante ne bii moom seeni i frein ñoo oto yi ndaw ñoo yem ah malgré nag lépp loo gis am na lu màggat man naa am gars yi ñu ngi koy saytuwaat mais ñun ñi nga xamante ne bii ci entreprise lañ nekk ñu oto moom man boog ci bi yi ma xam naa ne frein yi baax na wax yàlla waaw. mais est ce que amul oto ñu war a fourrière ci dëkk bi. am bagaay boo gisee ci tali bi kay yaa ngi gis oto boo xamante ne bii. mais yan façon oto lañ war a furee. non oto yu màggat yi rek yoo xamante ne bii de wóor na la ne kii daw na quarante ans quarante cinq ans dootul gone ah nit sax bu dundee quarante cinq ans laaj na dalluwaat. dañ ko jiin bus di ko jiin njaga njaay di ko jiin camion yi. à chaque fois di ko jiin tamit taximaan yi. à chaque fois taximaan yi dañoo ay euh, oto yu bees jamono yi gis ngeen taxi euh, parking bi ni mel rafet ba dee def. tata yi tamit pareil gis nga tata yu bees a ngi wàcc mais da cee am yoo xamante ni ay màggat lañ. Mm. ñu daax daaxal ko pentiir ko tegaat ko ci tali bi yooyu ci lañ war a wax rek mais wax dëgg yàlla liggéey bi moom mi ngi avancé moom wax dëgg yàlla. mais accident wu démb bi am côté foire bi nii ci entre waa ji yore bus bi ramassé ñetti doomu aadama loolu ci oto bi la wala ci éducation yi la wala wala wala wala ci tali bi la. non boobu nag dégg naa défense technique la awma ci lu ma leer. défaillance technique la problème frein la am parce que euh, à chaque fois frein mën nga ko paan bi ngay départ am ngay frein nga taxaw daal li média nga bëgg a taxaw nga perte frein loolu day am loolu moom défaillance technique day am à chaque fois waaw am ah, loolu loolu day am loolu am na ci oto yi yaakaar naa ne ñoo ko déggandoo kon dëkk bi li fi xew maanaam lu ñu war a pencoo la lu ñu war a waxtaanee la waaw parce que dañ ne ci safar si la ñii ne ci oto yi la ñiine ne éducation yi la xam nga maanaam jiñante bi bëri na daal xam nga war nañ ko péncoo mais su fekkee ne yow am nga looy wax état lu jëm ci wàllu tali yi maanaam tali yi da koy yaatal wala tali yi yaatu na xol yaxar wala éducation wala oto war a fourrière lan ngay lan ngay yóbbante état. Eh, parce que oto yi fii accident yi am souvent tali yu baax fa nekk. tali yu baax ñoo fa ñoo fa nekk bu dee côté Mariama Niass bii nga xamante ne bii à chaque fois accident am fa. Mhm. boo fekkee ne da def retention attaque gauche sës ci bordine bi foofu day baatare direction bi du toog tali bi day baatare li waral la parce que à chaque fois boo demee ci entreprise yi bu da ca am ñoo xam ne bu ñuy euh, bu ñuy arrobé dañuy jiital compacteur teg albaara tegaat compacteur compacteur bi baatare bi muy baatare mooy tax doo daan yooyu mais léegi nag gars yi xam nañ dañuy jiital albaara teg compacteur tegaat albaara pour que tali bi mën a liis mais loolu defar bu njëkk ba la mais pour l' instant nii boo tafoo gauche ata gauche souvent c' est euh, accident yi boo jógee Mariama ñu jëm pont an ba rabattre ata gauche sës ci bordine bi dangay sentir ne oto bi day battre direction bi day tëb mais bu fekkee ne da def rotation tuuti ñëw ata droite bàyyi tuuti gauche bi serré tuuti droite da ngay gis na dootul def dara Hmm. kon ci gauche bi foofu moo am problème. mais gars yi ñu ngi daw ndànk non gars yi xam nga tali bi nag wax dëgg yàlla mënu mënoo xam sa bopp xam keneen. wax dëgg yàlla mënoo xam sa bopp xam keneen te loo fi wax moom mooy lool moom daal nan ñaan yàlla état bi ñu jàppale ko ñu ngi doog a toog wax dëgg yàlla am nañ ci ñoom yaakaar yàlla bu yaakaar tas lii ñuy def nii ñoom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñoom yàlla na leen yàlla defal ndam waaw suñ takk der yi mënuñu leen a fay muy police di gendarmerie seen taxawaay ci tali bi rafet na waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ daal Mamadou Ndiaye fi nga liggéey. waaw maa ngi liggéey fii. ban bis ngay dawal. ligne 57. mooy daw fan ak fan. Guy Mouride Liberté 5. Liberté 5 ba Guy Mouride. waaw. nan ngeen di dundee situation tali bi. Euh, bisimilah onze billah bisimilah inna wali yàlla. ginnaaw bi sant jullee yeneen bi sant suñu ñaari waajur sant Sëriñ Tuubaa baax. ah liggéey bi moom. sofoor yi comportement bi bu nee sofoor yi ñooy Njaga Njaay ak la rek. lu ci mën di am chauffeur yi la comportement chauffeur yi nag si yenn chauffeur ak chauffeur bu mu mën di doon rek ñu yor comportement bu ñu comportement bu rafet lay doon mais buñ ko giñante naan kenn ndax chauffeur Tata bi la chauffeur la chauffeur bis bi chauffeur bi chauffeur la chauffeur Ndiaga Ndiaye chauffeur chauffeur Karaat chauffeur la ñëpp ay chauffeur ndax permis lan la yor permis bi ñu yor rek moom la ñëpp yor dañuy bañ a yor comportement bu rafet bañ di njëkkante ku dab sa morom ñu bañ a a dàqante bu ko tegee ci yoon rek dara benn problème du am mais nag soog koy bañ di giñ sëfoor yi damay bañ a xam dama koy teg ci mbiri borom subhanahu wa taala lépp damay yaakaar ne rek lu war a rek. éducation bi tamit. ci waaye éducation éducation comme li ma la wax rek mooy li ma comportement sëfoor yi si yenn damay bañ ñu maan maas noonu gi ne sëfoor yëpp sëfoor borom bis yi parce que accident yëpp njëkkantoo buñ généraliser ñëpp am na borom bis am na ñuy njëkkante am na ñu dul man mii soo ma dabee dama lay bàyyi nga dem du ma dàq mais am na te nag moom noonu la mel jàngunu métier mi danoo xëy xëy am permis fekk danoo jàng métier mi du am benn problème mais am na ñoo xam ne jànguñu métier danoo ñëw rek yor seen permis jënd seen permis dawal xamul lu code de la route wax xamul dara jàngul man fukki at lang naa ko 97 laa nekk ba 2007 la am transport. jaar nga ci lang lang naa si car rapide lang naa dawal naa car dawal naa Njaga Njaay mhm. mais lépp comportement la rek comportement ak chauffeur yu dàq bi am na chauffeur tataay dañ dàq chauffeur Njaga Njaay dàq chauffeur Coucheur day dàq ñëpp ay dàqe mais bu nu sonal sonal chauffeur yëpp chauffeur yëpp bokku nu yem mhm. am na ñoom ay responsable am na ñoom ay irresponsable lan matuñu responsable loolu leen jox it waaw boo nit ku nekk xoolal ci bi yor rek boo xoolee ci oto yor rek di nga xam lu mais est ce que permis ñëpp lañ ko war a jox. non non war nañ koo xoolaat. ñii si wàllu wàllu permis. waaw ñii signé permis war nañoo xoolaat ñi joxaat seen permis ñi jox permis am na ñoo xam ne jëruñoo jox permis am na ñoo xam ne jëruñoo jox permis mais it am na tamit responsabilité borom oto yi ñu ngi ci responsable borom oto bi mooy xool chauffeur bëgg lu yomb chauffeur ga jox chauffeur bu jox chauffeur bu mënul loo xam kii mën na dawal wala mënul dawal ñëw rek nga jox mu xëy. mais est est que oto yi tamit baax na. parce que am na ñu naan problème mu frein yi ñu dafa am yoo xam dañ leen yóbbu parce que dañoo yàgg màgget est ce que oto yëpp a a daw. d' accord naa parce que am na oto yëpp daw war nañ leen defaraat ñooñu ñu yor wàllu oto yi ñoo war a captance ñu jiite affaire ñoo war a ci loolu oto bu normal mu a daw. ñu sanction waaw ñu sanctionné ko wala ñu sanctionné ko sax borom defari ko ba mu nekk en état mu doog a bari na fi am na oto yoo xam dañoo passé date bi nii date dañuy wàcc ngay seen deux mille cinq ba léegi wala deux mille dix huit ba léegi war noo mën a defar oto yi frein yi normal lu ci dépannage tamit laaj na ci am na ñoom duñ dépanne xam ne dañ daw ba jékki saa yi pneu yi ne a toj waaw am parce que am na ñoo xam te ni ay pneu yi vanaa lañ jënd te pneu yi bees ñoo fi nekk war noo mën a jënd si pneu yi waaw pneu rek pneu yi bees moo baax mais banaa boo ne daw na fa dëkk ba yàgg ñëw day toj rek waaw noonu la demee mais lu ci mën am ne comportement chauffeur yi nan xoolaat suñ comportement bu baax ñun chauffeur si ñu xoolaat suñu comportement bu baax soog yi moom xam na ni yàlla moo koy def mais tamit chauffeur si tamit nan xoolaat seen waaw nan xoolaat seen comportement amaat éducation bu baax waaw waaw ah? ah, nga ne dafa am oto yoo xamante ni si dañoo màgget gars yi dañ koy pogaleer di ko jox booyee xaaj bi yëpp ay réservoir la ñu ay sëfoor ah, xaaj bi yëpp ay receveur lañ. du ñu ay receveur. lañ sax léegi mais comme jànguñu métier bi. métier bi dañ ko war a jàng. métier da nga koy jàng tarbiyu ko mais mënoo nekk receveur rek xëy ñu jox la oto bu mag ngay yeb ay nit di dem ak ñoom. su fekkee am na permis comme yow nag. waaw mais léegi soo amee permis comme man te man li ma jàng jàngoo ko nag différence foofu lay nekk. affaire yi dañ ko war a jàng. da ko war a jàng ba mën ko. mais bi tamit est-ce que naw ci gars yi joxe permis waaw foot bi ku lañ war ku nekk lañ war a jox foot permis foot bi tamit am na ñoo xamante ni si mën naa leen ne dañuy toog sax ñu jox leen permis te loolu du yoon ndax boo xoolee oto ay nit ñoo ci yëg quoi ah te ñun sëwër ay responsable lañ dañoo war a respecter ñi ñuy yeb ah, ah. premièrement sëwër da nga war a respecter ñi ngay yeb def yëfu nit correct am na loo xam ne si bu amee ñu xam ne ndogalu yàlla la mm-hmm. mais doo yor oto di def lu la neex ba yenn yi fekk la ci am na loo xamante ni si loolu mooy majeure partie ci tataay loolu moo ciy teraay yëpp njëgalante man sëbër teraay laa sama roo yi nee teraay dañuy njëgalante teraay yëpp dañuy njëgalante teraay bu ci bokk ak moroom moom fi ñu jëm dañuy njëgalante accident yi bëri na trop fan yii nii bëri na trop fan mais ñun ñoo war a xoolaat suñ toogaay rek mais gars yi dañ leen ko jiñ ñi ne bis yi la ñi ne njaga ne car rapide yi ñi ne tali bi ñi ne kenn xamul daal wax ji daal na daal mais daal yéen lañ ko jiñ mais loolu lépp ñun sëbër rek lañ ko jiñ ñu ñoo war a xoolaat suñu toogaay rek ndax liggéey tamit liggéey ak xel mu dal quoi mais boo ciy njëgante ba leneen fekkale ji ëllëg yow boo toogee tamit oto bi koy jox keneen rek mu liggéey ji yow yaa war a am sa matiru bopp boo xamante ni si ne man lu ma njëganteel kenn damay liggéey ci xel mu dal lu ma am xam ni lii mooy sama wërsëg ci bis bi accident wu barki démb bi tata tata bi def ramassé ñetti doomu aadama fii ci feneen bi waaw loolu xam nga ne na man si fees bi laa ko gisee nii rek daa tombé ak ma wàcce mais am na ñu ne da doon njëkkante ñi ne amul frein waaw loolu nan nga ko gis man mi version yooyu dégg naa ko ci quoi ñu ne daa amul ay frais ñu ne da doon njëgalante mais wax dëgg yàlla loolu moom ci fees bi laa ko gisee quoi mais bu fekkee tamit comme version bi ñu wax noonu la loolu du yoon saboor waroo yëpp ay nit di njëkkalante du dëgg du yoon ndax ñi ngay yëpp da nga leen a war a respecté fonk leen ndax ay nit ngay yëpp yeboo ay xar lan moo fi jar njëkkante bi dara jaru ko fi ñun ñoo war a toogaay ku nekk sa wërsëg rek ngay man loolu laa ci dëgg la jaajëf jaajëf merci beaucoup nee na loolu laa amoon lu mu ñu ngi lay fay. tur bi nan la. ma Touré ma Touré yaa ngi nekk fii ci terminus su Liberté 5. waaw Soforu 78. xoolal caméra bi Soforu. 78. Soforu 78. waaw. waaw mais dañuy gis ay accident yu bari ci jamono juñ toll ci kaw tali bi ñu jiñ ko Soforu tataay. waaw loolu moom dëgg la ndogalu yàlla la ndoxal su ñëwee ñëw na waaye ñun bu ñu sañoon bu ñu bu ñu xëyee taal suñu oto génne suñu kër. dañuy génn dañuy ñaan yàlla dugg ci al génn ci alhamdulilah dellu si waat ci euh, nekkul nag lu ñu gënal soog yooyu noonu ñun la gën a metti nekkul lu ñu gënal parce que tey suñu papa ñu ngi dugg si oto yi suñu yaay ñu ngi dugg si oto yi mais ñun ñun dañu war a changer waat comportement xam nga xam ne ñun ci nit ñi lañ bokk. waaw ñun sëboor si xam ne ñun ci nit ñi lañ bokk beneen bi ci des mooy euh, nit da ngay gëm war a gëm sa bopp parce que ñun oto yii oto yii joxuñu ko pour ñuy dàqante joxuñu pour ñuy fo. waaw dañ ñu ko jox pour ñu liggéey mais joxuñu ko pour ñu daaxal ci kaw tëli bi wala ñu def na ko su dul foo dem nag am na ñoo xam ne sérieux wuñ am na ñoo xam dañoo sérieux am na ñoo xam sérieux wuñ ci bépp métier la nag mais ñun buñ soñoon melentaan sax duñ ko laal melentaan buñ ko soñoon duñ ko laal mais ndogalu yàlla bu ñëwee ñëw na ndogalu yàlla bu ñëwee ñëw na te accident moog oto yi ñoo ànd ñaan ñu ko yàlla nag waaw képp ku musul daal yàlla na la yàlla na la ump mais du lu ñu gënal vraiment du lu ñu gënal waaw nee na accident ak tali bi ñoo ànd mais dañoo gis ne gars yi ñu ne chauffeur si léegi dañuy njëkkantoo ay client ñi ne tali bi moo baaxul xam nga ku nekk ak sa version yow yow yow yow yow nan ko nan nan nga ko jàngate ak ñan ak faute bi pour yow ci ñan la ñuy joxe permis yi am na ñoo xam dañoo xam ne gars yi ñëw du ne moo war a jóg rek ñu joxe permis waaw loolu moom dëgg la ñi ne am na oto yoo xam ne dañ leen war a fourrière mhm. loolu dëgg la loolu moom dëgg parce que am na ñoo xam amuñu éducation ñu chauffeur yoo xam amuñu éducation pour ñu leen a jox permis parce que tey yow boo paanee frein waaw boo paanee frein war nga mën a xam waaw dëgg la am na ci am na ci waaw na ci waaw am na ci am na ci mais nag ñooñu ak ak yeneen safóor am na ñoo ñoom am comportement bu baax am na ñoo xam duñ tux duñ naan sàngara am na ñoo xam duñ naan sàngara mais seen éducation baaxul waaw am na si ñoo xam ne dañoo réew ñëpp bokkuñu yem métier moo dem am na ku réew am métti moo dem am na ku réew am na ku yaru. yan oto lañ war a yóbbu Fourrière. oto ñu war a yóbbu Fourrière Ndiaga Ndiaye car rapide yi même tata yi am na si ñoo xam war nañu yóbbu Fourrière. duñ dawat duñ dawati c'est normal seen borom defar ko. permis tamit ciy wax ku jóg ñu jox ko permis. même permis ku góor ñu def ñu jox la permis parce que am na ñoo xam waruñu am permis parce que da ngay gis ñu dawal ay dawal bu salte ci kaw télé bi di galañ di taxaw ci digg télé bi loolu c'est pas normal jaaduwul. mais est-ce ñu ngi def seen liggéey. non ñu ngi seen liggéey moom. seen police yi moom ñu ngi def seen job vraiment ñu ngi def seen job de parce que Seydina Mohamed gars yi ñoo yaruwul ñu éducation am na ñoom yaruwuñ amuñu éducation ñun nag dañoo war a gëm suñu bopp suñu bopp ñun sëfoor si waaw barke yonent yàlla Mohamed waaw amul solo amul solo Touré jaajëf jaajëf jaajëf Touré Touré merci terminal la Bamba Ahmadou Bamba ñu fekk la fii ci terminus Liberté 5 waaw nga nekk sëfoor mm-hmm. mais nan ngeen di dundee situation talib ah situation talib moom accident yi bari na lool ndax ken safulu ko nit ku nekk boo xëyee sa kër fajar julli sangu julli jàpp ñaan yàlla ñaan nga yàlla dugal sa kër si jàmm boo dugg si boo génnee si jàmm ñaan nga yàlla dugal si jàmm soog moom kenn du ko sabablu coow li bëri na trop senegal fu tourné chauffeur yi nii chauffeur yi ay nit lañ dañoo am ay responsabilité yor ay jabar yor ay doom man mii di wax ak yow ñaanuma yàlla xëy dee wala ma xëy rey nit kon lu war a am kenn mun si dara soog yi bëri na trop ci tali mais kenn mun si dara parce que tey jii nii en général dafa am lu ñu ni xamul gis nga soog li koy arrivé maanaam li ba tax mu def soog yow bu la nga def ko. dañuy wax ne da ngeen di njëkkante ci kaw tali bi yooyu ay wax la rek ay njëkkante yooyu yàq der la. non loolu la gars yi wax te gars yi client yi tamit nee nañu loolu ngeen di def. non njëkkante yooyu wax nañ ko mais loolu c'est faux. am na ñoo non client yi am na ñoo xamante ni dinañ lool waaw am na fu ñu ko teg am na li wax mën naa ko am na fu ñu ko mais man li ma jàpp mooy li nga xamante ni tey bu la soog arrivé li tax soog bi loolu yow yaa ko mais njëkkante bi nag am na moom am na ñoo xam ne ñëpp mais man moom man moom man sama yoon dafa ngi nii man moom ñi njëkkante bokkuma ci tey jii rek moo ci mujj oro dama na ma mais dama ko bàyyi mu dem parce que man dàqante boobu laay boo waxee man la ñëpp ñuy siifa na chauffeur yi ñëpp leen teg bët coow li bëri na wax ji bëri na ñun chauffeur yi ñun ñoo war a daw coow li man gis nga bu dee mu doon tey particulier laay wuti ji de dawal sama bopp di man damay bàyyi transport parce que dafa am ñoo xam dañ ko saltel gis nga fa ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp ba tey ñay baax di ko teg ci yoon ñu ngi koy teg ci yoon mais chauffeur yi nag am na ñoo xam ne ñoom dañuy saltel am na ñoo xam ne nag ñu ngi koy teg ci yoon man moom nee ma dama koy teg ci de mais man moom damaa bàyyi jabar bàyyi doom de bàyyi suñu kër responsabilité man saa yi bu ma xëyee damay toog suñu tribune ne leen gars yi kenn ku nekk boo xëyee sa kër duggaat si jàmm santal yàlla ndax yàlla nee na boo xëy soo ba ngoon jot uti ji ñëw bala ngaa teg tànk sa buntu kër taril ñetti xulaalaaw nga wax ko dugg si biir parce que nit xëy na ba tàyyi dem hôpital nit xëy na ba tàyyi dem margo ba nit xëy na ba tàyyi mujjee fan barsàq kon soo xëy si jàmm wàcc si jàmm ñoor sa kër santal yàlla gis nga dama la bëgg a xamal benn affaire 2006 euh, 2006 meilleur choc du monde Arabie Saoudite lañ ko jox te Arabie Saoudite ñoo gën ño ñoo ñoo maanaam ñoo Sénégal ci lépp ñoo ko gën a yaatu ñoo gën a ñoo gën ay tali maanaam dama bëgg a xamal ni choc fu mu mënti am rek bu ñu jàpp ni tayef la. mais gars dañ gars yi dafa am gars am na ñu ne éducation la ñii ne oto yi dañ leen war a fourrière yaa ngi dégg wax bi ñii ne problème bi mooy dañuy siisante ci kaw bi entre tata yi. ak taximaan yi tata yi ak jakarta yi yi ak njaganjaay tata yi ak car rapide yi ñu ne siisante moo waral loolu lépp ak éducation ak oto yi nga xamante ni nii tamit dañ leen war a fourrière war a ñëw taw looloo waral yi bëri loolu la wala du loolu waaw non d' na naa loolu mais tamit gis nga gis nga man mii di wax yow barki démb fan dama xëy 82 suñu bëgg dugg am benn oto bu ma siif ma fare ne bàyyi ko mu taxaw xam nga tax ma taxaw ki yi na ma waroo ko woon bàyyi mu dem nangam nangam man leen lii duñ dem mais duñ la nga dem léegi moom galañ na yoon bi man mënoon naa njëkkante moom mais du ma ko def dama ko dawal maanaam moom dof la mais man dama nekk nit ànd ak sama xel parce que tali bi mooy li ma dégg benn ingénieur bu yàgg Moussa wax nee na gis nga boo yoree oto dawal yow jàppal ni yow ki ki nekk sa kanam dof la kenn na jàpp ni ki sa kanam dof parce que kenn ku ne ak esprit bi ngay dawalee dawal yi bokkut gis nga tey jii oto bii ni ma yor nii nakari na nakari boo xam am na ñu ma ko doon jox tey du ñëpp yemuñu kenn ku ci nekk ak ni ngay maîtriser kenn ku ci nekk ak ni ngay parce que comportement yi ñoo bokkul gis nga tali bi li may wax gars yi nee naa leen tali bi yaatu na de avion sax mën na fi daw mais xamul lu xat xol yi ñoo xat parce que dandul mayante mooy li ma wax tali bi avion sax xaj ci sa waay. yi nga xamante ni tamit waruñoo daw ci tali bi ñu war leen a fourrière te ñu te nekk ci kaw tali bi di daw. comme par exemple yan oto na. non non man man man man man man li may condamné mooy sànq sànq rek sànq rek sànq rek dama koy déglu journal bi sànq baa ngay déglu journal bi euh, xibaaru tàgg yu ay yu kii yu RFM bi ma dégg ndaw si nan am na xaw ma ban ligne 32 bu yab ba weng dama doon arrière sax mais damaa taxaw yaa ngi ko doon déglu mu naan benn ligne 32 la mais dafa yab a yab ba weng oto boobu sax waaw naan oto boobu sax warul daw nangam nangam naan naan dafa dafa yab ba sama xel kii li tax kon oto boobu yaa quelque chose man maa ngi doon dawal de mais dama teggi sama tànk di ko maanaam gis nga loolu nga wax noonu dafa am man mii di wax yow yoroon naa fi oto boo xam ci nii <laughs> waxuma la nga gis ko sax mais boo ko gisee da ngeen kii noo ko mën a yore mais fii Sénégal nga tey jii boo bëggeen jël tey oto yi màgget yëpp nga bëgg leen bëgg leen fëreer géej dina du dem parce que mooy Europe mënut am fii fii Afrique la xam nga Europe am Europe amul visite technique visite technique fii rek la daw sànni fii ne da ngay gis oto ba super ñaata la ñuy daw da ngay super super yi ñoomal suñu papa jamonoy carab bi jamonoy super super laa la yow lii du super de dañ ko tuddee super mais super mooy rapide yi njëkk yoroon essence yooyu amatul jamono yooyu ba léegi super yi tey boo ñu xool carab grisam ah day nekk ay soixante douze soixante treize soixante quatorze te tey la dàq daw waaw yow super yooyu ñu mag mag suñu papa nga ni maanaam am na super yoo xam man sama bàyyi ci la doon lang ba léegi génn na àdduna ñu ngi leen tëlee fii Sénégal la. dafa am loo xamante ni buñ ko fi bëggee dindi buñ ko fi bëggee dindi complètement maanaam dañ koy dindi ci réew mi barki Serigne Fallou kon dina di bëgg ñu lu waaye te duñu waaye de saa yi Sénégal de non dama loolu ñu wax noonu loolu ñu wax noonu oto yi màggee di fi leen fi jëlee fii loolu mënu fi jóg maanaam kay xamul fi nekk nañ jéem a changé war xol yi comportement yi mais oto bu ñaw ñu jëlee la fi loolu mënut a nekk. wàllu permis bi ku jóg ñu jox la waaw loolu tamit loolu waaw loolu loolu moom boo ma ci laaj mën naa jox dëgg la man gis naa ay yoon ñoo xam ñu ngi ay permis lam ko toog te mënuñu xamuñu fu première jëm ah waaye du jeex. dañuy yor ay permis. non mais du ñu ay chauffeur transport yor nañ permis am na ñu ma ci ñoo xam ay poids lourd lañ yor ñuy poids léger te mënuñu dawal man gis naa ko du benn yoon du ñaari yoon. waaw ah, mais ku mënul dawal nuñ koy joxe permis. ah mais Sénégal nag fii moom am na loo xam du lépp la ñuy wax nag Sénégal du lépp la ñuy wax de am na loo xam boo ba tey yaa ngi na la yow ki nga dama nga wax ñu ko du ma wax man xam naa ci lu bari mais du ma ko wax fii Sénégal la rek voilà xam man dafa ma tali bi ñaari fan dafa fi ñetti fan lu ne laa fi gis gis naa fi bu ne oto yi daw fi yoo xamante ne du lépp la wax fii Sénégal la man gis ki ma la wax nii gis naa ci ay yoon yoon yoo xam ne dama waa yow kii kañ nga ko passé nga ma nekk lépp ma xool adresse beeg lépp na ko ñaara ne nangam ma ne ko moo la ko génne waaw ma ne ko ingénieur mu ne ma nangam ma ree ko bàyyi ko taman leer na ma ne oto bi ma koy jox su ma ko joxoon ko client mu yeb ba fees barki sëñ Fall du ko mais nag fii Sénégal la du lépp la wax permis moom li ñu koy joxee moom sa waay bu dee nga dégg-dégg rek loolu moom lu ñu war a jóg la. maanaam war nañ xool ci wàllu permis bi. war nañ xool ci wàllu permis war nañ xool yi. yaa ngi dégg. ak ak oto yi. waaw oto yi moom ci la wax parce que xam nga oto yi coow li coow li oto yi mooy tey jii bu ñu woon tey jii mboolem fi tata bu ñaaw wala mboolem li fi car rapide bu ñaaw wala mboolem li fi njëge ñaaw bu ñaaw dañ ko fi jëlee boo xëy suba kenn du liggéey waaw parce que amul tax Sénégal ñi amul oto ñëpp ñam oto Sénégal tey jii bu kenn ku ci nekk ne boo xëyee tey oto màgg la ñuy frère barki sëñ Fallou dina xëy ñoo xam ci banlieue bi dañuy xëy dox dem Dakar parce que mooy bokkut Sénégal dafa metti nag am na loo xamante ni il faut gars yi bàyyi xel xam ni yo bul jàpp ni yow yor nga 4 foo dem ñu escorté la te lépp mat na rek lépp noonu la ma demee déedéet gis nga passe fukki dërëm ñu jël yokk ko ci oto yi fukki dërëm yi ñun ñi sax yor taraay sunu cent cinquante ñu yokk rek dèjà ñage njaay ci taarab sax am na ci yu bëree bëri xam ne sax cent franc yi sax client yi bëree bëri dañ cee daw ndax la fukki dërëm yi bu ko parce que fukki dërëm yi am na lu mën a faj tey ji mën nga ci waaj jënd ci ndox mën nga ci mën nga ci jënd benn benn gerte caaf mën waaw ak wenn kaas tuba café tuba naan fii Sénégal la maanaam lépp loo am yow ba matale ko bu jàpp ni ñëpp ci lañ toog kon li am dañ ko war a pencoo daal non dañ ko war a pencoo pour ñu toog wax li fi ne parce que gis nga dama doon dégg Cheikh Touré mu am benn wax bu mu waxoon Guinée boobu la ginne gën a metti Sénégal ay sog xanaa xamoon ni Sénégal bëriwul sog sog yi fi nekk nii Sénégal amul sog Guinée tolloo na foo xamante ni amoon nañu fa sog ba Sékou Touré ne léegi damay jël benn benn décret boo xamante ni chauffeur bu dawal at amatoo sog defoo sog defoo dara nan la décoré ba chauffeur yëpp tënku ci di ko dawal di teg ko ci yoon normal ba at bi ñëw mu leen ah kon yéen kon ndeket kon kon yéen a ko tey kon ndekete yéen kon li ma leen waxoon ngeen def ngeen kon yéen a ko tey kon accident yéen a ko tey ku fi rayatin dama lay tëj maanaam affaire bi ci comportement yi la xol yi la xol faal bu ko ñëpp tegee ci yoon rek barki Serigne Fallou ñëpp a yem tali ñoo xat man léeg-léeg def ma jëf joo xamante ni barki Serigne Touba <laughs> non saa yi du lépp la ñuy wax man mii damay dawal mais léeg damay dund damay dund conséquences yoo xamante ni tali bi wóor na yàlla oto daf may def loo xamante ni lu garaaw billaahi man reego yëngal sama bopp damay dawal ba mu yàgg gis ñi nit di jéggi ci naan ma ëpp maa ngi contrôlé ma yóbbu sama gars yi dama taxaw ñu leen gis ngeen ñun ñi chauffeur transport yi dañoo war a xoolaat suñu bopp xam nga tey oto bi li bari bari soo ko yebee ba mu fees yab nga procureur yab nga avocat yab nga gendarme yab nga policier bu civil bu toog ci biir yab nga mécanicien boo xam ne régime oto rek lay dégg maanaam mbooloo moom day noonu am na ñoo xamante ni xam nañ ñoo xamut comme yow miy dawal fexeel yow ba maanaam wala comportement boo xamante ni nañ ah kii da ko am yar ak teggin la parce que est-ce que yaa ngi may dégg loolu lu a bàyyi xel la man mii di wax ak yow dama koy sóoraale chaque jour parce que ñun man fi ma nekk am na bi ma nekkoon ñu ma defee soo ko partagé nañ ko dégg ligne 82 bi ñooñu ay euh, chef de comico bi nekk euh, yëmbal ay gendarme dong la te xoolal ñun bu fa xëyee ba dugg fa bu ñu xëyee ba yab ba dugg fa di di génn di dem Dakar mën naa ne ay gendarme civil dong nga yab ma di yor téléphone man du ma ñun ñooñu nga yem noonu am ñi ñoo yoo xam ne ñaa ngi ñu ngi si biir toog lesiwul ñun ñëpp ñu ngi lay bàyyi xel waroo dawal sa parce que loolu da nga koy da nga koy sóoraale adduna toujours am na loo xamante ni yow rek bu jàpp ne ma li rek ba tax na neex laay def déedéet am na koo xam ne ngi ne tekk te fekk borom mbagg la yow rek lay bàyyi xel am na erreur yooyu def rek mu ne la nangam ak nangam parce que man dafa am benn booy boo xam sama receveur la woon man maa ko yorom mu dara dul dara mu dem ba am permis commencé di dawal am sama benn grand boo xam ne dem dikk la nekk chauffeur qualifié la xam lu ma benn jour dafa dugg sama toog na ma baa ma mun maa mu ne ma am na seen benn boy bu njool ma ne ban boy mu ma seen benn boy bu njool la nii man dafa wax rek ma ne ah xam naa ko mooy xam nga ko ma waaw ma waxu ko kooku sama receveur woon man njëkk yor seen oto wàcce ko fa ñëw yendu fa def fa lépp papam bi oto bi génne man maa ko yor mu ma seen boy boobu ma mu ne ma waxtaan ak moom ma ne ko lu ko mu ne ma boy boobu ni muy dawalee ci péage bi ma ree yëngal sama bopp na ko chaque jour ma tàgg ma kooku dañuy contribuer baaxu ci biir oto bi la toog mais nee na moom sax dafa yàqamte wàcc parce que yooyu yëpp mooy li ma la rek ndombre boo yeb rek bàyyil xel am na ñoo xam ne yow la la ñu jël ndànk numéro xam sa tur jël ndànk dem police boole la ñu ñu ñu ñu ñu arrêté la jàpp la boo jël la jaay sa numéro bu ñu ñëwee jàpp la yooyu yëpp ñu mën a xel la waaw. yooyu yëpp yàlla yàlla duñu musal rek yàlla duñu musal ci seytaane ak musiba ak a te talib moom fii moom sa waay li ma mooy xoolal li fi ne ñun yàllaa ñuy sàmm wax ne heure bu ma xëyee ba wàcc duggaat suñu kër gi sama jabar gi sama doom dinaa tari ñetti xuloo laaw sante ko suñu borom